ñu ngi leen nuyu yéen ñi nga xamante ne yéen a ñuy topp ci King Taalif ñu andi leen histoire bu am solo boo xamante ne képp ku ko diglu lépp looy defati ci sa àdduna dina doon loo xamante ne loo xam-xam lay doon. di leen wax ngeen wéy di abonné ci seen YouTube bi tey partagé vidéo yi te di ko seen ñoo xam ne vidéo yi neex na leen. dafa amoon benn waay boo xamante ne dafa amoon ñetti xarit nga xamante ne ñoom ñoo daan ànd guddi ak bëccëg lépp lu ñuy def ñoom ñooy ànd di ko defandoo. waaye nag moom waa jooju noonu nga xamante ne ak ñetti xaritam yooyu nga xamante ne ñoom ñoo daan ànd guddi ak bëccëg moom waa ji dafa am jamono boo xamante ne dafa am loo xamante ne daf koo defoon mu doon lu yéeme lool waaye nag bi loolu amee nga xamante ne am na bis buñ ko war a woo tribunal mu dem ñu àtte ji ko waaye biñ ko waree àtte nag dafa daal di dem ci xarit yi nga xamante ne dafa dem ci par kenn par kenn bi mu demee ci ki nga xamante ne moom mooy xarit bu njëkk bi da koo daal di wax daan ne ko man day dafa am lu ma def teyit nag dama bëggoon ñu di ànd tribunal ba ndax day dañ ma faa war a àtte bi sàngam ma faa war a àtte bi mu waxee loolu xarit bi daan ne ko ah man lan laay dox di ànd ak yow tribunal ba ndax tribunal bee de xam nga ne bu ma fa ànd ak yow man lu may wax la nga doon def fekkewu ma ko xaw ma ca dara danaa fa dem di dugal sama bopp naan dama fay jéem a wax wala ma fay def man daal du ma ànd ak yow naan damay dem tribunal ba fenn laa dul dem fii laay toog bi loolu amee nag mu doon loo xamante ne lu metti ki nga xamante ne mooy xarit bi la mu ne ko maak yow bañ dalee ànd ba ba léegi nga xam ne sama yitte yëpp daanaka ci say bëgg-bëgg ak ci say mbir daanaka ci laa daan dox tey jii nii ma ñu war maa àtte nga ne doo ànd ak man mu ne ko loolu noo ko ma ne yow de kon xanaa doo xaat mu ne ko man daal li ma lay wax bay boo nga xamante ne wax naa la ko mënumaa ànd ak yow fenn naan damay dem mu ne ko kon baax na bi loolu amee nag mu daal di dem ci ki nga xamante ne moom mooy xaritu ñaareel bi daat koy xamal daan ne ko man dey dama bëggoon a dem tribunal ndax dañ ma fa war a àtte ji te dama bëggoon nga gunge ma ñu ànd dem tribunal bi bi mu ko waxee loolu xaritu ñaareel bi daan ne ko ah mu ne ko waaw mu ah, loolu de dina xaw a doy waaye baax na dinaa ànd ak yow su fekkente ne da ngay dem tribunal ba bi nga xamante ne nag dem na ci ki nga xam ne mooy xaritu ñetteel bi daan ne ko man day dañ ma invité tribunal ba war ma fa àtte convoqué nañ ma fa ma bëggoon nag nga ànd ak man nga taxawu ma te yàlla tax bi mu waxee ñetteel bi daan ne ko ah mu ne ko waaw mu daan ne ko waaw man day wax dëgg yàlla lépp looy dugg de man dinaa ci dugg lépp lu mën a doon man dinaa ci taxaw sama kem kàttan ndax ay xarit lan yàgg nañ yàgg nañoo ànd waaw kon nag tey doo dem ba nga xamante ne war ngaa dem tribunal ñu lay àtte may taxaw di la seetaan duma la seetaan benn yoon danaa taxaw fépp foo xamante ne war nañ la fa taxawee. bi nga xamante ne nag bis bi ñëw na ñoom ñu daal di ànd nga xamante ne daal di war a dem ca tribunal ba. xarit bi nga xamante ne nag moom lañ njëkkoon a wax moom daa demul fenn ndax nee na ko man duma dem benn yoon xalaatuma ko sax bi loolu amee nag mu ànd ak ñaari xarit yi nga xamante ne ñoom ñaar ñoo ci des ñu daal di ànd daal di dem ki nga yi xamante ne nag dem nañ ba nga xamante ne àgg nañ ca buntu tribunal ba ki nga xamante ne nag moom mooy xaritu ñaareel bi nga xamante ne moom la xon mu ne ko ah man de wax dëgg yàlla fii laa mën a yem taxaw ci buntu bi waaye nag du dugg mukk xalaatuma ko ndax man xawma la la nga def ak loon fay wax duma dem di dugal sama bopp kon daal man moom may boo nga xamante ne fii yem waaye man du ma benn yoon naan damay jéem a jël sama benn responsabilité naan damay wax wala def leneen mu ne ko ah mu ne ko mu ne ko kon baax na ki nga xamante ne nag mooy xaritu ñetteelam bi nga xamante ne nee na ko woon loo dugg man dinaa ca dugg lépp loo nekk dinaa ca nekk ndax maag yow yàgg nañ sama xarit nga ñu daal di ànd daal di dem ca ka nga xamante ne moom mooy tribunal ba ba ñu àggee fa nga xamante ne nag moom mooy tribunal ba moom nag ñu war koo àtte bi nga xamante ne taxaw nañ ba war koo àtte mu taxaw ci kanamu tribunal bi heure boo xamante ne nag ñu ngi koy àtte lépp loo xamante ne wax nañ ko xaritu ñetteel bi daal di taxaw dëgg ci ne lii day man xawma ko ci moom te moom defu ko kii day ak mbaax rek laa xam ci moom ak jub ak ragal yàlla ak nangu koo jaamu ak nangoo liggéey waaye lii ngeen koy waxal day xawma ci moom lépp lu ñu wax rek mu gaar ci bakkanam àpp ci lu ne ne leen daal man lii ma leen wax nangu naa ci ànd ak yéen fu nekk te assumé naa samay responsabilité kii daal man xawma ci moom lenn lu dul ak mbaax akum njub aku ragal yàlla kon nag bu ngeen ñëw bëgg koo tuumal lii bay boo ngeen xam ne man duma ci ànd guddi ak bëccëg nga xamante ne noonu lañ def ñu nekk fa di ko àtte di ko àtte ba nga xamante ne waa ji mujj na yey leen ñu daal di bàyyi waa ji mu daal di nekk ci jàmmam daal di ñibbi ca këram ànd ak péextéem loolu nag mbokk yi mu doon mbir mu doy waar moo xamante ne ñu ngi koy misaal ci ki nga xamante ne xarit yooyu nga xamante ne moom lañ la doon wax ak ki nga xamante ne moo demoon ànd ak xaritam yi ki nga xamante ne moo demoon ànd ak xaritam yi kooku mooy nit ñett ñi ci des mooy xamante ne moom mooy alal ki ci des mooy say mbokk ki ci des mooy say jëf yu baax doomu aadama bi saa yoo xamante ne dem na ba nga xamante ne doon na nit koo xamante ne day faatu na li nga xamante ne mooy sa alal du la topp du la def dara ci àdduna bii nga koy bàyyi ñépp nit ñoo xamante ne ba bàngaleen fi su fekkente ne ñoo xamante ne say doom lañ wala leneen mën nañoo nekk ca alal ji di kër këri duñ ca def loo xamante ne lu neex yàlla la kon nag loolu ñu koy bàyyi xel wala bu fekkee sa alal ja dala cay toppit dala cay topp mooy càngaay la ki nga xamante ne nag moom mooy xaritu ñaareel mi mooy say mbokk ak say dëkkandoo ak say am di jàmm ñi nga xamante ne ñu taxoon nañ ñoom nga daan toog di gaaram palaasal di debal di nekk ci der jàmbur yi nekk ci lu la neex ba tax daanaka daawoo tal yàlla nga xamante ne ñooñu ci nga daan nekk guddi ak bëccëg ñooñu day mbokk yi bis boo demee ba ca buntu bàmmeel ba foofu la ñuy yam ak yow waaye doo gis kenn nit ku faatu nga gis xaritam wala mbokkam wala ndeyam wala baayam wala kum mën a doon naan ànd boole leen maak moom ngeen suulaale ma ci biir bàmmeel bi kon kooku mooy xaritu ñaareel bi nga xamante ne moo taxawoon ci buntu tribunal bi ki nga xamante ne moom mooy xaritu ñetteel bi mooy ki nga xamante ne moom day nee na ko man dinaa la gunge ba nga xamante ne dina la layal defal lépp kooku mooy ay jëfam yu baax doomu aadama bi soo xamante ne day faatu na ay jëfam yu baax ñoo koy wallu te ñoo koy seere ñoo koy layal lépp loo xamante ne nar nañ ko def ay jëfam yu baax day suñ ci xoolee dinañ tax mu mucc tey mucc ëllëg kon mbokk yi nanu bàyyi xel ci loolu dong te xam ne yi àddina ji nga xamante ne guddeeg bëccëg ci la ñuy daw ba mu ñu yàqal sunu jaamu yàlla ak lépp loo xamante ne moom lañ ci war a def ndaxte day alal ji day ñu topp benn yoon ci sunu bàmmeel te nag su mbokk yeeg dëkkandoo yeeg am ni jàmm yeeg yépp ku ci nekk lawar war ci ñoom nan ko def waaye nag bum dox suñu digg ak sunu borom muy soxna yeeg lépp lu mën a doon lépp lu nar a dox sa digg ak sa boroom nanga ko moytu bu baax ndax day bis boo dee kenn du ne baal ma ànd ak yow daal di ñëw ki nga xamante ne nag mooy ko ñetteel mooy say jëf yu baax kon béye ba nga góorgóorlu ci baax bis boo ci góorgóorloo bu baax bis boo faatoo day sa jëf yu baax yooyu day moom moo lay doon li nga xamante ne mooy ànd ak yow ba ilaa yow mi diini nga xamante ne moom mooy taxaw ba tax keroog nga dugg kërug àjjana la kon nag nan bàyyi xel ci lii nga xamante ne ab yeete la bu am solo bu baax a baax ñu bàyyi ci xel di leen wax ñu ni wéy di abonné ci chaîne bi di partage vidéo yi te di ko seen ñu xam ne video yi neex na leen di leen ñaanal jàmm ba beneen vidéo jërë ngeen jëf